ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine juróom-ñetti fan ci weeru rakkaati gàmmu ci atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak ñett ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak nit ak benn juróom-ñetti fan bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na ci lépp li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu wala ku ca daloo ñaanuk bis bi yow sama boroom man day tooñ naa sama bopp yàlla na nga ma jéggal rabbi inni zalamtu nafsi faghfir lii xadiisu bis bi yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jublu penku tufli ëllëg bis penc dina ñëw ànd ak tufitam wa nekk ca diggante ñaari gëtam ya xaadis bi abu daawud moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tafala tujaaha al qibla jaa yowma alqiyaamati tafluhu bayna aynayhi rawaahu abu daawud liman maa ni la saaka kadi